mel ni li muy def ak néew danaa la da ngay joxe apport exemple a fi joxe benn exemple population mooy naan bi mu benn machine wal trois cent cinquante mille trois cent cinquante mille leen laaj ci benn machine wal ñoom ñu joxe ko mu indi leen machine boo xam ne ni keroog ba machine bi tàkkee ñëpp a daw génn yaakaar ne explosion moo am ci dëkk bi ñu deelee ko ko mu indiwaat beneen booba tamit me noonu ñoom ñu frais yi parce que boo xoolee machine bi li mu lekk lépp mën na cinq cent mille beneen bi bu ñuy wax

booba ba léegi le premier jan le premier janvier deux mille quinze la deux mille quinze la ñu installé inspecteur euh, Souané moo ñu installé Mbula ba mu ñëwee daf ne man reconnaître ma leen du ma reconnaître lu mel nga ne da ngay nga da ngay defar ab commune nga ne jeunesse ba doo wax ak ñoom. dama yaakaar ne béykat ak kan nag bu dee danoo aajowoo suuf ku leen bu a aajee suuf sax ne doo leen fa bay defe naa du sotti te ñun loolu tey mooy suñu naqar moo ñu fi indi. bu dee dañ bay ñu lañu dugen bay comme li waja hectare 30000 xam nga ni ku mënta am aw jiwu wuy jar ñetti jooni bu neul hectare 30000 nga wara bay lu ma juróomi hectare xam koku dal nako ayé bay ki sam bu jël all bi diko jaay fo jëm ne la fi sama tool wala ñu barbar ka amu fu saw nag jëm koku dootu mëna sam ñun nak li ñu taxañu a ñëw fi mooy naqar naqar bi nak ñiko wara fajj a faj fu ne jooytoo ko fa dem non fu ne ñu ci dara légui nak di nit ñi wax mo fi dess ah yalla duma duma la may yalla lu may munta am nan xam ne que lu am yàlla moo ko ñu ñu moo ñu ko ma ñu wakkilu joxe suñu bakkan yi. parce que bu dee doo tax fii que lu mu joxo mu rek ñu ne ñu mu dem bu yàggee gars yi ngeen bëgg a sàmm du ngeen sàmm ñu daan bëgg a béy duñ béy. man nag may jigéen dong di daan sama doole ànd man yoruma machine yoruma yoruma fas yoruma dara di daan sama doole te teewut daf maa sonal bugal ma yóbbu ma alamaan ma ñeent fukki junni. boo samay bokk ko fay ndax man aw dara mënu ma dara waaye taxut teewut mu nekk di ma xeex léegi nag man ay dañang li may ñaan comme ñun dañ coo dañoo sonn di jooytu dañoo bëgg nag lépp li ñu bëgg ngeen dimbale nu ci te yàlla tax suñ ko defu tit bu ëllëgee leneen lay jur waaye kii moom ñoo nekkatee ak moom ndax moom amul rusukaay amul dara ndax bu amoon ñu rus buy dem góor ñi man fee ba jigéen ñi man tànk man jigéen laa doog di daan sama doole ak sama njaboot ah mu fekk ma sama jatti di ma bugal dina ne ma doo ko fu goor ñi taxaw taxaw naa fa fu góor ñi taxaw taxaw naa fa te maa ngi yore ko feebar ba ci ku wari di la génn àddina te lépp maa ngi koy topp dem nañ luga dem nañ dem nañ Louga dem nañ Linguère dem nañ Yang-Yang ñetti yooni Louga dem nañ ko fa

c'est la première fois ñu mëna dégg né baykat nawet jot na mu taw ñu jël ko def ko ci kasse bi commune mbuula la xewee musu fee xew si benen commune ñun nak ay béykat lan amuñu leneen képp ku ñu xañ mbay dana la xañ ca dund li nak moy dernier mars bi nga xamné mom lañu def si commune mbuula def nañ meeting def nañ sitin def nañ mars lu ne def nañ ko amul kuy waxu ci réew mi sa déggoo li xew mbuula bii dernière fois bes bu ngeen déggé né li amana lu fi xew nan xam ne nekk luy bett benn nit senegal Macky Sall na si jël ay mesures kii li soxla na fi jóg xaaruñu mandaam jeex balaa deux mille dix huit nañu abal ñu seet ku ñu yoral nit ñi yemaleen ñu nit ñi fii li fi xew mooy amul bodd konte benn famille fi ne amul pël amul olof amul naar amul séeréer benn famille moo fi nekk depuis cosaan ba léegi benn nit mënut a dikk pour diviser nit ñi ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey nag

mën naa depuis mën naa plus de 5 ans yo xamanteni wala 3 ans yo xamanteni mais à chaque fois à chaque instant suñu suñu rak yi nekk fi ci CM bi chaque instant buñu défé examen ñom ñoo jël premier du santé mbeul xalé yi dem diko défé chaque année nak chaque année la ñi ma élèves yaa ngi ma bàyyi na fen chaque année buñu défé examen ñom ñooy jël premier du centre légui bu yagu lañ fi organiser woon ben kii nii nu mu non pas meeting ben fête pour élèves yi fos ko journée culturelle affaire yo la fi organiser ñu invité ko mu ñew mu wax publiquement élèves yaa ngi duñ ma bàyyi fe mais en français tey en français la ko wax bu dente ne ci man am mës a am seeb lii la ñuy wax carrément ñëpp ma fe ñun nag lu ñu bëgg mooy que am ne a jàng bëgg leen a teg bëgg a a jàng daal mooy que mu jàppale bu ñu mënul kon président Macky mi nga xamante ne ba moo président Macky Sall mi nga xamne dama ko na xamne carrément Gorée ba liggéeyalu ko fi dara dara ba dara bo la jox liggéeyalu ko fi liggéeyalu ko fi dara liñ bëgg dal moy qu'il s'en aille nañu abal bëggutuñ ko on a vu plus de lui franchement ñun moy loolu dal bëggutuñ ko dal na dem waaw liñu dajalé fi rek moy askan bi ñoo sonn askanu commune bi yëpp ñoo son parce que dañ fi dañ fi voter ben loi bo xamne bi loi bi moy na population bi béykat yi nañu mbay parce que boo la laajee hectare bu nekk 30000 francs te koku lima la wax moy

Euh, dañu nekk si àll boo xam ne bi càmm ak mbéy rek moo fi am te boo tourné si commune bi yëpp foo tourné gis ay tool waa dëkk bi ñu dëkk si commune bi xamuñu sax tool yooyu kan moo ko moom wala kan moo leen ko jox conseil sax danga nga leen laaj ñu ne xamuñu ko wala yëguñu ko donc askan bi bu ñu fi nekkee ñu joxe suuf si de yëguñu ko xamuñu ko xamuñu as terrain bi fa suuf si fan la jëm ba pare ñi nga xam ne ñii tey ñoo doon béy wala sàmm dëkk fi sa pegg keur ñu def fa amu do fo samé tol bi nga don bay depuis sa mam depuis sa say say say bàyyi nga ñew ñu fekk la fa ne du do fi bayati nga wax ñu yobula kasso kaso parce que tay ci tay li fi xew barki demb moy ay baykat nga jël len si nawet deug nawet nga jël len yobulen kasso kaso fofu la soxor mëna yem parce que tay lo rek la am fofu la yaakaare lu mu at nga arrêté ko yobuko kasso kaso donc fofu lolu lañu ne mënatul am ñew nañ fi nak ñëwaat fi nenañ duñ fi ñëwaat ñiko wara fajj ko fajj ko fajul luñu gis ñun la loolu lañ leen wax te tay askan bi yëpp ñoo fi dajé malgré taw bi bari na mais nit ñi ak feet gi nit ñi affaire bi xat mais ñëpp mobiliser wu na ñëw fii parce que affaire bi ñëpp la metti nit ñi ñoo am problème te ñoo nekk ci fi di am problème c'est fi lañ dëkk mënu ñu fi juggé fi lañ dëkk benen bi mu ngi jaxassé askan bi tay entre pël wolof pour lan pour mom mu gëna nekk fi di dem day dem ba nit ñi amatuñ jamm te ñun jamm joju moo ñu gën a lu am parce que fi lañ ko fekkon té mom lañ bëgg mu continuer amatuñu jàmm ak suñu mbokk yi nga xam ne ñi tey ay ay doomu baay lañ ay doomu nijaay lañ ñu ngi tuddeen ay doom ay xarit lan donc kon ku ñu bëgg a jaxase duñu ko nangu loolu moo fi nekk loolu moo ñu fa dajale tey loolu lañ ñëwoon pour pour wax ko wax ko askan bi donc képp koo xam ne kii ba ci président de la république loo ci man nga taxaw ci problème bi ñu réglé ko wala lu xew si commune Mbul rek askan bi ñoo ko def. mais pourquoi Macky Sall ina waɗano poppa heddi Mbul so fekke dañu wax euh, hono wiyete hono tawi ɓe mbi ko parti euh, sénégal émergence mbolo sénégal appe manda ka gannawlo ya ndemut yeeso mbolo yarani yeesere dara naaya pour affaire defaluñu dara gisuñu dara ñu yëkkati kayit jox ko kayit gi moo ko jaay moom moo ko jaay ci biir onze parcelles yooyu am na mille hectares yoo xam ne dem naa ci rajo ñaari yoon ana Samba Kari bu ma bàyyi ma fen deux fois wu trois ñaata yoon nga ma woo émission ma ne la duma ñëw lu dut dafa wax ba pare mu yebal alaaji Cheikh a Cheikh bi mu ñëwee ma a la même chose violence environnement ma ne ko mënul ñàkk comme noonu moo ñuy tàggalee ci jaas suñu ñagut suñu tool yàqu ñu ci xeex rayante gën a ndax jañax na leen ci suñu kaw fexe na ba waa soo diggante pël ak olof yi duñu waaye dama ne kuy bañ pel da nga denc ñaari pel man fatim sowa nga ne ci kër ga fatim si nga joge fanay bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa julli ci ma nga ne ci kër ga ouf leer bu bes moko tay ñew fi fii daba ñang mi moy turando hmm? ki man nga bañ pël diggante bobu tay ñun musuñu dem sàndarmali xamuñu won lool lim daan rek la lu ne fi ci penj mi la mais dugg na fi pel baaxul olof baaxna olof baaxul pel baaxna ba kenn tuddu nuyu kenn kër gim jàngee woon a ngi nii ma nga fa muy kër Sayxu Ñang kër turandoo bu fi xale góor baam bu fi ne na jékkati loxoom ba tey jii ñoo koy añaale di ko reeraale niñ doon añaale bàyyam di ko reeraale ba tey jii moom la moom nag yet ñun rocc ngir yàlla bu ko mënta régler nañu bàyyi ñu régler suñu bopp lu régler jafewuñ li ñu jaaxal rek mooy yoon ñu jaaxal mais waat naa ko ci yàlla bu ñu libéré woon dans une semaine kenn ki ñu sulka ki ci des dem ci buuma la ñu dem fajo lii laa amoon lu man Malick Gueye population bi na ñoo ko def loolu rek mooy wax mu la moom daal la ñu abal même mbaam ngonk laa wax kii ŋaax kii ñuy sëf ndox suñu ko andalee mën nañu ci jël exemplaire bu ŋaax ñu am ci lu ñu jëriñoo wasalaam daa la wax ne dictateur la boo defante na pël ak olof jaxase na sàmmkat ak lii daal moom laa am ci li ma lay wax ne la àll bi daal li jëpp moom def na ko ay parcelle garanti ko denc ren ji bi moom café da ko ubbi ji na ko jaay di ko jaay di ko sa ñaar ak jël sa danté ak ba nga xam ne fii da dox un kilomètre ci parcelle bi boobu ba pare soo ko andi sa dugg sarse dëgg te Papa sax ma ngi nii fii ci côté Mbiye la nekkoon nii réservé de koy ne dafa bind sama bokk tax ci koy dëgg nga àll bi yëpp dagg na ay parcelles lii ñuy béy nag moo fi bëgg jaxase pël olof moo tax mu jaay àll bi pël ñi lekk ci bii tool yi la ñuy amuñ amuñu fu ñu pël benn am ñoo xam ne sax gàttaay nañ jóg fii pour bañ a tooñ ñi nga xam ne ñi tey ay ay ay la man chef de serre constat bi deux ñaari ñaay yoo xam ni moo taxaw na leen guri ne bu bii cent cinq la bii euh, quatre vingt mille la kontaan na ko ba mu dem si chef de serre mu taxaw ñu ne Gordinet bul fay ba léegi fay ñu lool dossier ba léegi jàll tribunal te kat xamuñu lu ko kal moo tax ma ne ni dictateur la bon de contraire day jaxase pale olof jaxase sàmmkat ak béykat daa ma ñang di chef de village bu la ba naa lay wax lépp sama kanam